wàcc ci dëkk bu sell bi di Touba ginnaaw nag bi nga xam seen yàgg dañ fee ñëw nag dëkk bi nag nekk dëkkub xéewal dëkkub yërmaane bu ngeen ci bëggee xam ak naka ci bëggee xam dara da ngeen topp ànd ñun eh, ci 24actu point com mooy ànd ak sama cameraman Modou Diouf aja topp ñu ñu dem comme mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ci ci bi ñoo ngi fii ci marché Ocass bi ngir daal di fas xool ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi eh, surtout ñi nga xam ne nekk jaaykati gan ñi ñi nga xam se ne dugg si nañ ci dëkk bi euh, ñii nag ñi daal di fekk leen fi nag ñi nga xam se ne ñu bokk nag ci li nga xam se ne di njaayu mat la moom la ñuy jaay ñu bëgg a xam tamit seen place yi ci naka lañ koy faye ak euh, mètre ñaata am na kenn koo xam se ne nag jot nañ cee taxawal ak moom sëriñ bi tur bi nag euh, Ibrahima Sidibé Ibrahima ñu bëgg a xam place yi ngeen di daal seeru jafe-jafe am la si place yi waxtaan la juboo rek mais affaire bi seerul daal mais Touba Touba dëkk bu amul jafe-jafe dëkk yu la affaire bi seerul noonu daal place amul jafe-jafe waxtaan la jubóo la dong mais amul jafe-jafe seerul noonu daal. Mhm. waaw ñu gis ne installé wu ngeen fi mu toll nii dëkk bi gis nañ ne tamit mi ngi commencé xat ah, naka ngeen di jànkonteeg loolu. waaw instant ni client mu ngi raam raam mu ngi ñëw ndànk ndànk quoi waaw. mel ne Ndiaye Madelane fi mu nii dox na de. Ah, mu ngi raam daal client mu ngi raam ndànk ndànk instant nii day ñëw laaj rek xam prix yi dem après ñëwaat mais après amul problème mais client mu ngi ñëw ndànk ndànk. comme client yi ni ngeen ko daan gisee 100 pour cent gisagu leen ko waaye ñu ngi commencé dugg si ndànk-ndànk commencé na ñëw de commencé na ñëw laaj prix bi ba xam à la dernière moment ñu ñëw jënd mhm. yéen place yi bu ngeen ko dee fay ñan ngeen ko dee fay non xanaa ku nekk si gars yi taalibe yi kay mais seerul noon place yi wax dëgg la seerul noon taalibe yi ñoo di fayee ko lu ñu leen di fayee mhm. ko mètre ñaata non mètre kay daal seerul mënoo hmm. mhm. ñoo wax prix bi daal non non ah. courant bi daal mi ngi commencé xéwal. naka ngeen gisee dëkk bu sell bi di Touba ak euh, ñi xam se ne ñoo fi nekk population bi niñ ma niñ mënee dalal gan. alhamdulilah rabbil alamin rek comme d'habitude comme rek xam naa ne ren moo dàq daaw sax mhm. man loolu laa gis. yàgg ngeen a ñëw. oui. Euh, depuis ma xool maa ngi ñëw fii. Mhm. ba léegi mais alhamdulilah li ma sant ren moo dàq macha allah ngeen dégg ko noonu Ibrahima moom lañ taxawaloon dégg nga ko ni mu daal di waxee dëkk bi dëkku xéewal la ah, ba pare gis nañ ne màggal gi dóoragut waaye nee na ren ci boppam moo nar a dàqagut ba tey tamit noonu la ñu daal yeneen ñi rek daal topp mbokk yi xoolal leen jaaykat yi nga ñi nga xam seen ñoo di gay ni yi surtout ñi nga xam seen ñoo di gan ñi ngir daal leen di laaj rek naka lañ daal di dundu njaay mi mu mel ne am na tamit kenn sama tur Mouhamed Lamine Keita Mouhamed Lamine Keita ñu fekk la fii ngay jaay palaaka naka ngeen daal di seen palaas yi nga xam se ne moom ngeen di jaayee fii waaw bon alhamdulilah Touba moom ñu waa ñu ngi sant yàlla alhamdulilah bu baax a baax seen marchandise yi bon ñu commencé installé comme ni ñu commencé wu ñor mooy petit à petit ça va xam naa Touba moom kaar macha allah. yéen fan ngeen daal di jóge man Ndar laa quitté. nan nga Ndar. place yi leen di luyee ñaata lañ leen koy luyee ak euh, mètre ñaata ngeen di fay noonu. bon fait man daal fii daal xaw ma mètre ñaata la fay man yàgg naa fi waaw si kër gi laa bokk moo tax man tout le temps chaque année fii laa ñëw installé buntu place bi nii installé non mais mais ma fay. kon fi sama sëriñ El Hadj Bara yàlla ko. Mhm. mooy sama sëriñ bon en même temps soxna moo fi nekk fii tout le temps ba mu ñëwee moo ma héberger moo ma jox añ moo ma jox rek mhm. reer dëkk yëpp ma jox. Mm. Euh, comme tey ji naka ngeen di gisee dëkk bu sell bi di Touba ginnaaw bi nga xam seen da ngeen fi ñëw di fi jaay si mu mel na tamit euh, yeneen dëkk yi tamit yéen a ngi fi euh, naka ngeen ko gisee daal par rapport ak yeneen dëkk daal comme comme dëkk comme tey ji nga xam se ne yéen a ngi koy jaay yi feneen xam nga ne defe naa jaaykat yeneen événement yi tamit dinañ dem di jaay ah, waaw waaw comme ni ngeen di dundee événement Touba bi ak yeneen événement yi naka ngeen koy ah. dundee non xam nga marché foire yi mbuur kees ndar yooyu foire foire internationale moom lay yaayee quoi mhm. mais Touba moom boo ñëwee teel a ñëw fii xam ne fi am na si yaakaar mhm. xam nga nit boo amoo yaakaar fen doo dem dégg na yoxul dafa nga am yaakaar nga doog a départ ak dem foofu fii ne am na yaakaar ba xam ne bu ñu ñëwee Serigne Touba Kadimal Sall dinañu jàppale mhm. waaw loolu moo tax ñu ñëw fii dëkk bi vraiment dëkk bu seen la dëkk dëkk bu neex la moo tax. ndax client yi ñu ngi ñëw bu baax a baax. waaw pour moo moment client yi commencé wul ñëw. waaw parce que affaire feebar bi. ku nekk mooy moytu quoi dañuy joxe ay distance ay mètres bon en même temps affaire bi daal quoi mais xam naa su neexee yàlla feebar bi day dem gars yi commencé ñëw incha allah waaw. waaw waaye pour jaay moo tax ngeen daal di ñëw installé ndax fi ñu toll tamit ndax yéen waaw loolu laa la wax loolu laa la wax ma ne boo gisee ñu teel a ñëw nii am nañ si yaakaar surtout surtout commerçant ba amul yaakaar fenn ah <laughs> commerçant du dem de <laughs> du dem moom. loolu si wax wax day na noo baax na rek baax lay wax mhm. mais commerçant ba amee yakaar balaa yeneen ñi ñëw fekk moom ñëw na ba pare installé mhm. waaw comme dëkk bi daal ni ñu ko waxee muy dëkk bu yërmaane daal comme gis ngeen ci loolu bu baax a baax bu baax kay loolu kay moom kaar macha allah xam nga foofu laa foofu laa commencé wax bu fekk amul dëkk yërmaande comme yeneen dëkk ba mu demee balaa ngaa samp da ngay fay place ba pare mhm. ah balaa ngaa samp da ngay fay xaar taf taf taf ba pare añ yaa jënd sa bopp mhm. reer yaa ko jënd sa bopp dëkk loolu yëpp mais fii moom man daal mun ma wax si booloo yëpp sama laay xam sabab bu laa laa mun a mais fii man man ma añ génn ma reer yëpp fii kër gi la génn waaw ah, comme que yéen yàq ngeen a dem ci yeneen événement yi naa kon est ce que du Touba rek ngay dikk bañ a fay place wala feneen foo dagg bu nekk tamit da ngay fay place. non feneen ba demee borom kër yi franchement digg na yoxul dina ma jaay place moom comme Tivaouane dinaa génn place bu njëkk Tivaouane mu mu mënu ma woon génn parce que bi moo fi nekkoon mooy sama yaay temps boobu maire bi ma ko yoroon place bi mais depuis maire bi gaañu doom yi commencé jaay place waaw. ngay waaw Ndiassane moom xam nga ñu bu ñu commencé fii Touba Tivaouane Ndiassane noonu la ñu quoi mhm. bon Ndiassane mooy Touba mooy match de ouverture mhm. Ndiassane eh, eh, Tivaouane demi finale mhm. <laughs> Ndiassane finale bi. waaw Ndiassane moom xam nga foofu dañuy organiser ñoom ñoom daal organiser nañ dañuy wut benn bayal jaaykat yi yee foofu lañ jëm. foofu lañ génn jàkkaat yëpp foofu lañ regroupé wutal ñu ko ay baas donc baas bu nekk ñu da ngay fay 35000 benn baas mais 6 places moo fi nekk ci biir boo boobaa boo calculé ku nekk xëy na peut-être 7500 wala 10000 yooyu daal tu vois 35000 waaw non non baas bu nekk 35000 ngay fay ah, waaw mais waaw waaw dégg ngeen ko noonu moom Ibrahima ba tey moom la ñu daal di nga ko ni mu daal waxee moom dëkk bi nee na rek la fi gis ndax moom it place bi mu nekk tamit fayu ko benn yoon te euh, defee kon dëkk bi ba tey rek euh, dëkku sëñ Tuubaa la lay daal di ñu daal xool tamit ñeneen ñi nga xam tamit ñoo di jaaykat yi ñu fas yéene ànd ñoom ba tey rek ngeen di ñu topp ah, ba tey wax ni ma leen ko waxee woon rek yéen a man ñu dugg see ci dëkk bi ñu fas yéene laaj ba xam place yi tamit naka lañ koy dundee ak naka lañ ciy daal di fay soxna si tur bi naka. waaw man maa ngi jullee Seydina Muhammad sallallahu ñuy sant yàlla bu baax baax fii depuis ñu commencé ñëw fii yàgg na nekk na vingt ans ñuy ñëw fii kër bi kër bi baax na ñu fii la ñuy wàcc ñu am jàmm salaam ñu du jënd place fii xewal Serigne Fallou rek la ñuy may suñu ñëwee. ñu toog ñu jaay depuis ñu ñëw fii amul problème ñuy lekk ñuy naan ñu sant yàlla xewal rek la ñuy defar ñu amul problème. Ah. kon fayu leen place fii ngeen nekk ni non non ñu fayu place fii amul fayu place ñu si ñu ñëwee ñu ngay jox ñu toog ñu jaay may ñu lekk may ñu ñu naan jàmm salaam amul feebar amul dara wallaahi. yeneen événement yi comme que di ngeen di jaay si xam jaay si wu leen Touba kese mhm. yéen a ngi jaay ci si yeneen événement yi ndax ndax bu ngeen demee foofa di ngeen dagg place waaw ñu ngi dagg place jënd mhm. ñu ngi dagg place jënd mais fii Touba non ñu jëndu fii Touba waaw fu ngeen dem da ngeen di jënd ñu ah, fa ñu dem ñu ngi jënd place mhm. mais fii xewar Serigne Fallou rek moo tax mu jotee ñu mënu toog foo ñu ñaw xewal si fal ñu ñëw waaw waaw. Uh-huh. kon gis nga ni dëkk bi daal fi mu toll la ba tey. waaw waaw. est-ce que bu ngeen dikkee di ngeen yàkkamtee ñibbi. non non ñoo bu ñu suñu daal ñun ñu nekk fii sax tellement si ñëwee fii xewal bi ñuy am ak jàmm salaam ñuy am dafa bari. Mm-hmm. billaahi. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah ngeen dégg ko noonu day suñu bagage day jar nit ñi day ñoo jënd ñu am jàmm billaahi jàmm dafa bari. dafa bari yàlla yokk xewal. yàq jàmm salaam ah, may si borom kër bi gudd fan ak wér ak jabootam yëpp. Ah. ngeen dégg ko noonu macha allah xam ngeen ne bi tamit mooy dëkkub Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha xéewal gi moo fi yaatoo ne dégg ko jaaykat yi nga xam se ne moom lañ dajaleegul ñëpp euh, dégg ngeen ko jënduñu place benn yoon te nee nañ dëkk bi buñ fi dikkee sax duñu yàkkamtee ñibbi ndax xéewal ak jàmm ak salaam goo xam se ne moom lañ fiy daal di amee euh, dégg ngeen ko dañuy jaay seen bagage ci nu leen neexee te duñ jënd lekk luñ soxla dañu koy daal di lekk euh, te tamit dañuy ànd ak fi ñu nekk dañ fiy ànd ak jàmm ji yaatu ni rek la ñuy daal di toppee ñi nga xam se ne ñoo di marché bi ay ca topp maam Thierno ñu fekk leen fii ngeen di jaay euh, li nga xam seen moo di palaake ngeen bokk ci gan ni naka ngeen daal di gisee dëkk bu bi di Touba. waaw macha allah rek macha allah ñëw ne fi daal Touba neex na am na jàmm lépp am na daal ak Serigne Fallou parce que fii kër seen bas la ñuy nekk seen bas mu Fallou borom baax la baax na trop trop baax na moo ñu teg fii ñu jaay chaque jour kontaan naa moom trop kontaan naa si moom torop ndax yéen place yi nga xam si ne moom ngeen nekk ndax da ngeen koy fay wala. non ñun daal euh, duñ ko fay duñ ko fay waaw lépp seen Basiru la lépp moom la moo fi bàyyi. suba ak ak ngoon maa ngi koy eh, ñaanal gudd fan ak wér. est-ce que comme Touba ni ngeen fii daal di dunde di ñàkk fay place est-ce ngeen demee ci yeneen dëkk yi nga xam ne moom ngeen di jaayee di ngeen fay place wala. non non eh, Touba bokkul fenn tuuba bokkul eh, fenn daal Touba bokkul fenn fii moom macha allah hmm. foo jëm macha allah. barke Serigne Fall fi moom macha allah loolu kese la. Euh, kon daal xam naa ne fi mu toll nii yéen a ngi dund ak euh, ànd ak ñun di dund mbégte mi donte ne fi mu toll nii euh, taalibe murid yëpp ñoo ngi ko waajal li nga xam ne moo di màggal Touba comme tamit yéen ñoo am seen gaa ay tamit yéen ngi daal di dund li nga xam ne moo di mbégteem safar mi. waaw ñun léegi fii sax ñu gan léegi ah parce que miin nañ fi daal. waaw miin nañ fi daal de barke yàlla miin nañ fi. waaw amiin nañ ci trop. daal bi ngeen dikkee ba léegi fi ñu toll nii sax booleeti leen seen bopp ci gan ñi ndax fi ñu ni nii yéen a ngi bëgg a miin li moo di dëkk bi ci ban an année ngeen fi commencé ñëw. fii 2016 lañ commencé ñëw fi 2016 ba tey ba tey am nañ jàmm jàmm lañ am daal jàmm rek lañ am fu ñu dugg daal jàmm lañ am. kon ni geen di duggee ci dëkk bu sell bi di Touba du ngeen yàkkamtee génn euh, est-ce que di ngeen ko dund ci yeneen régions yi kon tey ji bu ngeen fa demee ci yeneen dëkk yi pour bëgg a jaay non euh, Touba euh, benn dëkk daal waaw fii moom mm, na trop dégg ngeen ko noonu wolofam sax setul lool waaye dégg ko ni mu daal di dikkee ci Touba neex na trop Touba bokkut ak fenn ah, ndax dëkk la boo xam si ne maanaam bu ñu fi nekkee duñu fay seen i place mën nekk bu nekk daal di fay li nga xam ne moo di place yi ah, te fii lekk tamit jaaxalu leen comme ni ko ngeen ko dégg rek ñeneen ñi di ko waxee moom tamit dégg ngeen ko mu mel na baat bi day daal di doon benn ah, ndax dëkk bi moo nekk dëkku Serigne Touba ba tax na taalibe bu nekk bu daw dugg si fi bu nekk jàmm rek ngay daal di am kon ngeen daal di ñu toppee noonu rek ba tey ñu xool ñi nga xam ne ñoo di client yi ndax dafa mel ne daal ànd ak ñun di dund li nga xam si ne moo di mbégte mi donte tamit dañ fay ñëw ngir jaar ci seen bagage tamit ñu ngi dund li nga xam si ne moom la Touba yeeyo mu yërmaane aca comme ni ma leen ko waxee woon rek ginnaaw bi nga xam se ne tamit duggoon nañ leen ci marché bi ngeen daal di dégg li nga xam se ne moo di client yi euh, dégg ngeen ko ñi nga xam se ne ñoo di jaaykat yi dégg ngeen li nga moom lañu daal wax euh, fi nga xam se ne moo di dëkk bi yaakaar nag ci nga xam moo di dëkk bi ñuy jaay bagage bi nag dégg ngeen ko ñi client yi ñoo ngi commencé ñoo ngi ndànk-ndànk ñenn ci ñi nga xam se ne tamit topp nañ leen ba xam place yi ñoo ngi ci am koy fay wala fayu ñu ko njaay mi ban jafe-jafe lañ ciy jànkonteel nee na amuñu benn jafe-jafe boo xam se ne moom lañ ciy jànkonteel euh, dégg ngeen gëm ko dëkk bi dëkkub xéewal la ginnaaw bi nga xam se ne Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Khadimal Moustapha loolee tamit la ci bëggoon mu nekk dëkkub yërmaane ba tax na ku fi daal gën a dal euh, par rapport ak yeneen dëkk yi buñ demee fi ñu toll nii dagg place fii nga xam se ne di dëkk bu sell bi dégg leen nit ñu daal di waxee dégg ngeen leen benn place boo xam se ne tamit dañ ko fi daal fay loolee nag tamit dégg ngeen ñi ñu daal di ànd ak moom nii rek lay daal di demee euh, ci 24actu point com ñu ànd suñu équipe euh, dara du leen raw dala dara du leen rëcc tamit ngir lépp ñu ànd ak yéen ngir programme màggal gi ak lépp loo xam si ne da koy daal di dundal bu nekk rek di ngeen ci ànd ak ñun nii rek la fay daal di demee ma àndoon ak sama cameraman Modou Diouf ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dox daje ci beneen jotaay